waxtaan wi dañ koy tënk ci ñetti tomb yu bokk ci tomb yi sëriñ Touba Xaadimul Moustapha sallallahu alayhi daa faral di def ngir jàngal ci mag ñi ci nu gàtt te leer li leen war ci seen diine li leen war seen diggante ak seen borom ak seen diggante ak seen moroomum jàmm lu bokkul ak téere yi mu bind def ko ay way ngir mu neex a mokkal ndax boroom xam-xam yu njëkk ya dañ ko wesaroon mu naqaree mokkal ngir bariwaay sëriñ bi dadaa dajale taalibe yi léeg-léeg di waxtaan ak ñoom ci ay tomb yu muy tomb ci suuf mu doonoon méthode bu efficace ci dugal dara ci seen bopp benn bés dane leen diine ba diine jeex ñetti xaaj rekk la waajib mooy li war man dóob mooy li ñu sopp mu baax mooy li ñu daganal daldi ne li leen war nag yéen mooy ngeen wàcc lal yi te dem ci der yi ndax tëra ngi ñëw boo xam ne ku ci àgg da nga tëdd loo bëggoon a tëdd danga nga tëdd loo bëggul woon a tëdd ku tedd ki di Cheikhuna al Xadim dañuy xamal foofu rekk ne fii di àdduna amul noflaay dañu fee ñëw ngir sàkku ngërëmal yàlla ci jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudu ñëwuñu fi ngir fo walay caaxaan wala ngir bànneexu kon fulla ak fayda mooy kenn ku ne la tax ñu bind ko mu ne ca sëriñ bi di ñu xamal ne adduna gàtt na gàtt goo xam ne nopp lu xaju fi na nga xam ne saa su wéy su ne dem na te dootu delsi waxtu wéy wu ne dem na te dootu delsi bés bu wéy bu ne dem na te dootul delsi weeru wéy wu ne dem na te dootul delsi at mu wéy mu ne dem na te dootul delsi kon saa su wéy su ne waxtu wéy wu ne bés bu wéy wu ne weeru wéy wu ne at mu wéy mu ne wàññeeku na ci li nga war a nekk fii ci àdduna kon waxtu wu ne yaa ngi wéy di gën a jege dee te xamoo kañ la ak fan la mbokk mi saa soo tëdd su ne ngir sa bànneexu bakkan yaa ngi ñàkk loo dul mën a dabaatal ba faw bàmmeel xat na xóot na tàng na te ca sunu maam aadama ba léegi ña nga tëdd ba tey kon tëraay gënu ko yàgg moo tax sëriñ bi di ñu xamal ne ku nekk ci li ko neex topp bakkanam di ci bëggam tëraayu bàmmeelam dina yàgg ci moom lool dina naqari te dina ko soof ku muñ noflaay ngir dabu bànneexu boroomam dina noppali ci bàmmeelam dina tëdd lu mu bëggoon a tëdd fii ci àdduna te doon ko muñ te yàlla rekk a tax sëriñ bi kon dañuy muñloo sunu tëraayu àdduna nu bañ a topp sunu bakkan ci bëggu nooflaayam nu bañ a topp sunu bakkan ci bëggu bànneexam ndax moom bakkan du nu wommat jëme ci lu dul sunu loraange ak réccu ëllëg looloo tax sëriñ bi ne li nu war mooy nu wàcc lal yi te dem ci der yi ndax tër a ngi ñëw boo xam ne ku ca àgg danga nga tëdd loo bëggoon a tëdd danga nga tëdd loo bëggul a tëdd <coughs> sëriñ bi daldi cee teg ne ndax xam ngeen seen mën dóob ñu ne tekk mu ne mooy ngeen bàyyi ndamu yi bañ ne bés penc démb la woon ku tedd ki dañuy xamal foofu rekk ne nit ki fii ak mi ngi noy yàqule weesagul ci moom ndax seytaane mi ngi koy tunglu waxtu wu ne di ko gasali kàmb te suñ borom jox na ko doole joo xam ne ku mu rëbb du sooy bu ko yàlla dimbalewul am na ku masa ree reegu kawe ci kër sëriñ bi sëriñ Touba Xaadimu Mustafa ba sëriñ bi dégg ko sëriñ bi di laaj ndax dafa jéggi siraat ba pare ngir rekk jàpp ne kenn wërta tal bànneexu wala luy nuru ndamu fii ak bés ci jàllul mbirum balaam ak bristis doy na firnde ci waxi ku tedd kii ay boroomi xam-xam lañu woon doo noon jaamukati yàlla yu dëdd woon ba sori lool ci yàlla waaye dañoo mujj bokk ca ña fa lépp ci pexam seytaane wala iyaadu billah kon bu nu ndaw suñu jenn jëf lu mu rëy rëy wala ñu di ko ndamoo mën ngaa jëf mbir mu rëy lool ci yow walla ci bëti nit ñi fekk lu xébu la fa yalla ta sax man nga umpulé ndax yalla nanguna jëf ji wala déet bu nu ndamo suñuy wajur ak nu ñu toll ak lu seen jëf reey reey wala ñu di leen mbubboo ndax kenn ku ne li nga jëf rek les lay fay kenn du fay mukk jëfi jambul ta kenn nit du la gàddul say bakkar serigne touba dañuy xamal rek ne jambi. war nay góor lu fu mu toll ci jaamu yalla lepp lu ko borom digal mu def ca kemt lay katanam lépp lu nga ko tere mu di ko moytu lu mu mën di def lu baax te sax ci te lu mu ci def xeeb ko waaye bul xeeb dara lu baax ba ci dandale bant wala dégg wala xottu butéel bu nekk ci kaw yoon wi ngir mu bañ a lor kenn ndax bu la ci yàlla di fay ëllëg danga ne daa baax rek waaye defaluma ko lu toll nii waaye tamit bul yéem jënn jëf ndax sunu boroom mën na koo bañ a nangu ndax ay ràgg-ràgg mbokk mi segam yaa ngi dund te leer na la tëwoo seytaane fu ne mën naa nekk sa mujj ci maanu teg yàlla wala ci yërmandeem kon xamoo nooy mujjee ëllëg li tax sëriñ bi ne nanu bàyyi ndamu yi bañ ne bés penc démb la woon sëriñ Tuubaa daal di cee teg ne xam ngeen seen mubaaxa ñu ne teg mu ne dara dara dara daldi ne dara ju njëkk ji mooy àdduna ku ci xam dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des dara ju ñaareel ji mooy àllaaxira ku ci xam dara doo ko fàggul dara ba naw ko ndax dara du fa doy dara ju ñetteel ji mooy yàlla ko ci xam dara doo def dara lu muy tere sëriñ bi dañuy xamal ne jaam bi war naa xam àdduna bu baax xam ne waraa kon la bu am dut wéy nanu xam ne sunu borom da da da koo sàkk sàkkunu ngir nu jaamoo ko fi bu ëllëgee ci àllaaxira kenn ku ne mu fay ko lu méngoog na mu doon doxe ci ndigalam yi ak tere mi mbokk mi xamal kon ne àdduna du luy sax ad dunya faniya segam nag faw mu jeex nala leer taminne faw nga jóg fi kullu man alayha fani te li la fi jële moy de kullu nafsi da'iqatul maut waye dafa melne xamoko ndax gisoko mu don jëm juuy nek sa wet mom de wala sa kanam wala sa gannaaw di la topp wala di dox ak yow dalay dikkel te buy ñëw du la tàggu la taatiikumoo illaa baxtatan te foo mën a nekk mu fekk la fa aynama takunu yudrikum maut wala kuntum fi burujin mushayyada wala mafarra anhu amul fenn fuñ koy laqato ta wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut xamoo fan la ak kañ la yaa ngi doon ndaw lu am kattan am say projet am say mébét yu rëy dee fëkk la lépp naax saay yaa ngi doon waxaale kër wala nga di ko tabax dee jël la joto koo dëkke yaa ngi war a takk soxna ba jàpp bés dee dee ñëw jële fi kenn ci yéen ñaar yaa ngi génne sa kër tàggu sa njaboot ndekete yoo mooy seen gise bu mujj yaa ngi añ wala ngay reer yàlla jël sa bakkan bala moo rees guddi jot na nga tëdd am loo mébét a def suba walla nga war a xëy liggéey faroo yeewu dee faw mu fekk la ci looy def te prégo yóbbu la wala looy bëgg a def adduna wan la gannaaw say bokk ñàkk la ba faw duñ mën a gëm ne dem nga tëddootoo dootoo delsi te la nga nekk duñ ci xam dara jotoo cee tàggu kenn ndax ñàkkoon a xam kañ la rawatina gaawaayu jàqalikoog ruux gi ak jëmm ji mooy raw xefuk bët fekk la nag adduna rekk yitteel la ngay wut alal mu jaral la lu ne nga ciy xiiroo ak ngaayoo di wor ak wax lu du dëgg di xëccooy daraja ak nguurug àddina ba mu jaral la faat bakkan sa baaraami dëy yi tànk yi tàmbalee sedd sab gis tàmbale lëndëm ngay xëj am jafe-jafey noyyi sab àpp agsi na jeexal nga ci àddina mii nga nekkoon di ko liggéeyal jàpp ni da nga sax tey jii nag ngay am lu leer ne deelu am la tey jii ngay am lu leer ne lu yàlla wax dëgg la mosoo gëm ne nii lay mettee ñu rob la mosoo gëm ne noonu la bàmmeel xate noonu la tànge noonu la wéete say bokk wan la gannaaw di dellu ca kër ya nga di leen dégg mu leer la ne tey jii teqali kaw nga ak ñoom ba faw te nga tëdd sa jëf rekk la fay wéttali ba yowmal qiyaam say bokk ña ngay waxtaane dee ak nim la yóbboo waaye dee lan la la war a wax mi ngi naan sa ruux gi teqalikoo naag si jëmm ji xanaa tey jii de mujj nga gëm ne dee lu am la ku baax dina ko def ku bon dina ko def dal dina dee mooy li nga xam ne kuy dund ku ne di nga ko ñam bés bii nag mooy sa bés bi ñu la digoon dootoo dellu àdduna te waxtu wi la dee di dikkal loo mës sa jëf baa nga wax ko def na ko jaarale ci sa kanam mu mel ne ab film booy seetaan jëf yu ñaaw yi nga daa jëf naqari la lool ba doo ko bëgg a xool waaye waxtu wi metti lu rëccu ak tuub du la jariñ dara ndax suñu borom tëj na sa buntu tuub walaysat altawbatu lilladina yaamaluuna sayiati xata ida xadara axadahum lmawt qaala inni tubtu alaan bokk yi fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaroor bu leen àdduna war mukk ak yiy nuru yu rafetam ak yi bànneexam ndax dina la woon ginnaaw ci diir bu gàtt ngir ak dem te àdduna li yagadi yàggadi yàggadi sa dund gi moo ko gën a yàggadi fi ngay mane ak fi ngay tëlee kon teel koo fase bala mu laa fase ndax moo lay noppal sallallahu taala alayhi wa sallam nee na azzuhdu fi dunya yurixu alqalba waljasada àdduna boo ko wanee gannaaw te yàlla tax di nga noppal sa xol di nga noppal sa yaram ndax àdduna bu la yitteelee waxtu wu ne yaa doñ te loo kërti kërti ba jot ca di bëgg loo ca dolli te loo bari la bari la boo génnee faw nga gis loo moomul te loo fi mën a am bu ëllëgee yàlla dina laaj foo ko jëlee ak noo ko jëfandikoo ku ñuy wax asib radiyallahu anhu dafa nettali ne sallallahu taala alayhi wa sallam da koo romb genn guddi dal di koy woo mu topp ci ñuy dox ba romb sayiduna abu bakar radiallahu anhu dal di koy woo mu topp ci ñuy dox ba romb sayiduna umar radiallahu anhu mu dal di koy woo mu topp ci ñuy dox ba dugg ci toolub tàndarma boo xam ne kenn ci ansaar yi moo ko moomoon sallallahu taala wa sallam ne ko may ñu lu ñu lekk kooka dal di indi cëggub tàndarma bu mag dal di leen di tegal bi ñu xéewloo ba pare sallallahu taala wa sallam ñaan ko ndox mu sedd bi mu naanee ba noppi dal di ne la tusalunna an hada yowma alqiyamati lii de def na leen ko laaj yowma alqiyam sayidna omar radiallahu anhu dal di gàddu ci gu tàndarma bi diko dor ci souf melne ko daanu jël ba doomi tàndarma yépp tasaaroo ci kanamu sallallahu alaihi wasallam dal di ne ko yaa rasulallah inna la masuluna an hadha yawm alqiyam kon li ñu ñu may ni ñu lek ko sax dañ ñukoy laaj bu yawm alqiyam sallallahu alaihi wasallam sallam ne ko naam illa min thalathin khirqatin li xafa biha awratahu aw kisratin sadda biha jawatahu aw aw hujrin yadkhulu fihi min wal walqar waaw waaw lépp lañ ñuy laaj ci sunu dund ba mu dess ñetti yëf mbalaan mi ngay sànge sa awra daggu mburu wi ngay faje sa xif ak xunt mi ngay dugg ngir selo ci naaju tàng ak sedd bi sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena sallallahu alaihi wasallam dane ko in aradta al-luhuq bi فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه bu fekkee bëgg nga ànd ak man aljana na nga doyloo ci àdduna lu toll ne yóbbalu kuy tukki rekk na ngay wattandiku di jekkiwaale ak borom alal yi tabul sol mukk yére yu yees fii yëg yi nga am rappul lool salman radiallahu anhu dafa tawatoon saad radiallahu anhu seeti ko fekk ko muy jooy saad ne ko yaa axi looy jooy ku àndoon ak sallallahu taala wa sallam lu mu war a jooyati saadu wax ko yu bari yu tax wóorut a jooy dara salmaan ne ko saad man jooyuma ngir àdduna mii ma nar woon ginnaaw wala ragal la may fekki àllaaxira déedéet waaye dafa am lu nu sallallahu taala alayhi wa sallam dénkoon te matale wu ma ko saad ne ko loola lu mu salmaan ne ko sallallahu taala alayhi wa sallam daneen woon kenn ku ne ci nun na doyloo ci àdduna lu toll ni yóbbalu kuy tukki rek te ma gis ne ëppal naa ko dal di ne saad maa ngi lay dénk booy àtte wala ngay seddale wala looy mën a def ci àddina nga di ca bàyyi xel yàlla te Salmaan bi mu faatoo ñaar fukki dërëm dong la bàyyi gannaawam ak jooyam yu metti yooyu cey léegi nag dañuy ëppalantey oto dàqalantey kër ak i soxna gën a feesalantey compte bancaire kenn ku lay ñaan ñaanloo ngërëmal yàlla amut te sàkk ngërëmal yàlla moo ñu fi indi waaye ñëpp dañ naan la ñaanal ñu milliards yu ñu liggéeyee la sëriñ bi mel na kuy baat sëriñ bi ak yàlla te sa wërsëg yàlla noppi na ci ba pare bu ñëpp daje woon ngir xañ la li nga war a am duñ ca man dara bu ñëpp daje woon fas yéene nga bari le mënuñoo fexe ba nga weesu li la yàlla sédde bokk yi daray àdduna jërul xëccoo daray àdduna jërul lorante daray àdduna jërul rey sa bopp bànneexub téeméeri at nag ci àdduna jërul mbugalum senn saa ci bàmmeel li moo tax Serigne Touba nenu àdduna ku ci xam dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des Serigne Touba mi ngi ñuy xamal tamit ne àllaaxira lu mat a xam la yafay xew ciy tiis ak i naqar akum njàqare ak ak métit lu mata a bàyyi xel la yow ma yafiru lmaru min axiihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ku gis sa moroom daw ndax jàpp ne dina la fayeeku àq joo ko yoreloon li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi ngir kenn ku ne sa mbiri bopp doy na la ci ñàkk xam noo koy lijjantee bés bi yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idin banihi wa sahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi l ardi jamian tuma yunjihi da nga gis koo xam ne buñ ne ko woon nañ dugal sawara sa doom ak sa soxna ak say bokk ak ñin ak sax ñi nekk ci suuf si ñépp danga nga mucc mu ne waaw ndax rekk bëgg a mucc ci mbugalum yowmal xiyam bu mbindeef yépp daje ca bés pénc ba daañu fa taxaw ñetti téeméeri at kenn du wax ak ñoom kenn du leen faale benn xibaar bu ñëw ci ñoom bu jóge ci suñu borom subhanahu wa taala ñépp tiit jaaxle lool ne xojj asamaan ne xojj di xool asamaan kenn du wax ak ñoom ngir kenn xamul fu muy mujj da nga gis ku naan rabbi arixni min hada al intidar walaw ila naar suñu borom noppal ma ci xaar bu metti bii ma nekkee donte danga may dugal sawara sax baax na segam xaar bi rek moom metti ba mu jaral ko dugg sawara ngir jàpp ne moo koy noppal kon xawma bu ñu tàmbalee àtte nu mu mel lii moo tax Sëriñ Tuubaa ne àllaaxira ko ci xam dara doo ko fàggul dara ba naw ko ndax dara du fa doy Sëriñ <coughs> Tuubaa mi ngi ñuy xamal ba tey ne sunu borom subhanahu wa taala ku mata a xam la jàmm bi xam ne yàlla ku am la ta ak amam amul fum tàmbale naka jek mi ngi fi te léppay jeex mu dess fi kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ta ak desam amul kay monu sak te tagul ken mom te bokku no ken mom lépp mom fépp lu ne mu sañ ko ci nun te def kenn du ne ko lu tax saa bu ko neexee rey nu ak ci façon bu mu ko neexee saa bu ko neexee dundal nu lu ko neex nu toog fi bu ko neexee tawatal nu bu ko neexee wéral nu bu ko neexee may nu ba duñ jeexal dara bu ko neexee xaj nu ba duñ dese tus njariñ wala lor du jóge ci kuddul moom lu xew mooma lu am mooma mooy mbugale mooy jéggale loo gis ci dogalam day dox te mën na lu ne te kàttanam amul yemukaay lii moo tax sëriñ bi ne yàlla ku ci xam dara doo def dara lu muy tere mbokk yi noo ngi leen di dénk kon nu gën a góorlu ci jàmm yàlla bu baax te sellal ko nu fonk julli juróom te bañ leen sàggane di woor weeru koor dina taasaka ci alal ju ko mate aj màkk bu jàppandee te lépp nu dëppale ko sunnas Mustafa sallallahu alayhi te nu gën a góorgóorlu ci taalibe nanu doon taalibe sëriñ tubaay yu wér tey dëggal ñu bëgg ko yaakaar ko doyloo ko bañ a xool laneen faneen bu ñu poñetum àdduna fàtteloo ki ñu yaakaar ak ñii ñu doon bu ñu poñetum àdduna sànkloo sunu taalibe wala ñu yàq deru sëriñ bi am nañu siyaare ji woon sëriñ bi ca ceyeen <coughs> ba ñu tàggoog moom ba génn sëriñ bi dablu leen ñu woo leen bi ñu ñëwee sëriñ bi ne leen baa du ngeen yàq sama der ñu ne ko mbacke lu yàq sa der mu ne leen mooy fu ngeen dem di ma mbubboo te duñ leen seen mukk ca la neex yàlla kon ku yaakaar sëriñ Touba warta doyadal jaamu yàlla ku yaakaar sëriñ Touba warta warta woyofal sharia ku yaakaar sëriñ Touba daa war a nekk ci li neex yàlla di moytu li naqari yàlla koo bëgg faaw nga bëgg bëggam di daw bànneexam kon mënoo bëgg sëriñ bi di doyadal diine ndax dundam gépp ci la ko jeexal sëriñ Touba li yàlla digle rekk lañu digal amul lum ñu ci tere li yàlla tere rekk lañu tere amul lum ñu ca digal lu mu tuuti tuuti te nu bàyyi tamit aljana mi ñuy yombal Sëriñ Tuubaa mas naa wax taalibe yi benn bis ni leen ku ci gis fenn foo mën a amee aljana te doo jaamu yàlla na fa dem ndax fii fi man amu fi mas na leen a wax tamit ne ngërëmal yàlla yombut ndax da liggéeyal yàlla ba mu yónni malaaka mi lay jébbal si ngërëm li ba mu la koy waaj jox mu ne ko taxawal bu ko ko joxagul wëral ma xoli doomu aadama yi ba xam mas na cee def kenn lu ko naqari te bakkanam rekk tax bu ci gisee kenn koo mas a def dara lu ko naqari sa bakkan rekk tax mu ne ko delloo silma sama ngërëm kooku yeyoowu ko kon yombal ko ak yaafuus la ak pexam seytaane bokki taalibe yi ku am sëriñ tubaa loo ñàkkati bay jaay sa ngor bu loola amoon njariñ yàlla teg ko ci loxoom ku ànd ak Serigne Touba looy tiit mën na sëkk kiiraay ku topp ci sëriñ Touba looy gestu wëccoo lu mel ne moom sa gannaaw ku wommatu ci sëriñ Touba looy ragal pakk fi mu lay jaarale fépp leer nanuy topp ndigalam tey moytu tereem wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yàgg fi loolu